dina xibaaru làmb noonu laay def daal di nuyu xamante ni mooy Assane Waalo gën ngeen koo gis waaye gan gi la tey daa ñëw dañ koy nuyu rek fas yéene jukkil leen li gën a fas Assane maa ngi lay euh, fay Bey Mbacke di nuyu a fas ci yenn kaay. di leen ba léegi revue bi Uri Jador moo leen koy may ak gàmbu complet boobu mu àndal daal di ñuy indil vermicelle Jador macaroni Jador spaghetti Jador ñu ne déet Assane ku hmm. nekk ci ataaya Jador waaye kenn du oo ndox boobu ñuy aar. ndox sportif yi ndox sportif yi baax sell oyof neex jaarale ko ci ay jumtukaay yu mucc ayib naa leen di def consommer ak ah, consommer local la doomu réew bi moo ko fi def ci noonu laa ne saraax ci journal suñu làmb ka muy xëyee nag di fils de De Gaulle di Boy Niang numéro 2 borom curuku curuku ginnaaw ba mu recruté ay boxeur France féete France la muy woote nag mooy bagaar la muy xamal Tapha Tine mooy bu fekkee xeex la indi muy bagaar dina ko wuyu dina fekk lu tàng jër ah, mbay waaw ko Assane waaw Assane Wall dëgg la Ndeye Mbacke loolu la journal bi bind tey ba pare def benn interrogation ndax nee ndax booy Niang mën na inquiéter Tapha bi mu posé wu question boobu nag dafa jox kàddu kii di Djibril Kandji Djibril Kandji moom mooy coach équipe nationale bu boxe Djibril Kandji lu mu répondre nee ne Boy Niang mën na euh, xeex ak wala mën na euh, xeex ak ak n'importe quel lutteur ci arène bi ndax nee na ba muy xale dafa doon jàng boxe foofu ci centre bu naan Jacques Chirac euh, mën na boxe moo tax. képp ku nekk ci làmb rek Boy ñaa mën na xeex ak yow Boy Niang également journal bi nee na war na réussir fi nga xam ne nii jee ak Elton dañ fa laj ndax Bombardier ak Elton dañu daj ak mu dóor leen ba seen kanam gi yàqu te loolu nee nañ Boy Niang war na ko éviter bu baax a baax. daal ci indi ay mhm. mu mu jaar beneen yoon. jaar beneen yoon mën na indi lan la nit simple euh, jàpp bëre au lieu que mu privilégié xeex bi Tapha Tine moom xeex mu nguur. ay loxoom tànganañ fu mu dugg fu ne ay bund feeñ selon nag INSEP de Paris depuis 10 mai bi passé Balla Gaye nag 2 débarquera à Dakar demain incha allah salwaalo loolu la journal suñu làmb bind nee ne euh, Balla Gaye 2 depuis ba mu demee foofu ci INSEP bu Paris depuis le 10 la fa demoon léegi nag la suba la le 10 su ma juumul wala euh, en tout cas deux mois la fa waroon def te deux mois presque ñëw na looloo tax nag journal nee ne suba incha allah ci 20 heures maanaam 8 ci gutti voilà nee na boobu lay Balla Gaye di ñëw te mi ngi dugg ci euh, avion bi naan Air France moom moo ko indi nee na nag dina àndaale ak ndax Aziz Ndiaye umpale woo leen ko temps yi mi ngi dem euh, foofu ci Paris fekk fa Balla Gaye te nee na buy ñibbisi moom moo ko indiwaale. te loolu nag ci adversaire am ba lañ jëm di b cinquante de Mbour Bombardier et les revanches entre joie et mu mel ni revanche tamit da ci jëlee naqar maa mu jëlee ci bànneex. dëgg la euh, Ndeye Mbacke Bombardier nag yàgg na ci arène bi te jot na euh, def ñetti revanche ndax euh, daje na ak Yékini deux fois daje na ak kii di Tyson deux fois daje na également ak Baboy deux fois waaye am na ci naqar am na ci bànneex ndax Yékini daf ko daane deux fois di kii di daane na ko le 29 octobre 2000 ba pare daane waat ko le 28 mars 2004. mu def ak Tyson Tyson moom Bombardier moo ko daan deux fois euh, seen première fois ñuy daje vingt cinq décembre 2000 la woon ñu dajewaat mm, le 7 janvier 2017 ay ñaar yooyu yëpp euh, Bombardier daane ko. daje na également ci revanche ci ak Baboy Baboy daf ko njëkk daane le 16 avril 2006 ñu dajewaat Bercy le 8 juin 2013 euh, Bombardier jël fayu ci ci ci ci Baboy. mu ngi noonu nag ginnaaw malfaiteur yi di profité ci événement yi am ci arène national ba wala ci làmb yi di def ay ñaawteef kii di aram boobu na jël na ay mesures contre les agressions les combats se termineront à 19h maanaam. dëgg la fu mu rek ñëpp daal di jeex dëgg la Ndeye Mbacke démb la waa CNG doon def euh, réunion euh, tënk euh, bi ñu nag li tënk moom mooy que dañu bëgg léegi combat yëpp di démarrer 16 heure wala 16h30 19h pile ñu jeex. loolu nag aada boobu bopp mi nga xam ne nii moom mooy porte parole CNG bi moom moo ko xam ne ci journal yi léegi na nee euh, ne disposition wala mesure yooyu la CNG jël di dinañ def tout daal ba combat yi di commencé 16h di jeex 19h nee ne lii dina tax agression bi wàññeeku te jël na yeneen également ay mesure ne nañ bëgg nañ euh, kenn dootul ubbi euh, porte yi c'est-à-dire bu ñu ubbee port yi ba ñëpp dugg ñu tëj ko balaa kenn génnaat faw làmb jeex ba pare. loolu dina ci gën bu baax nag gis nañu instant bi làmb bu amee genre njaayeen yi dañuy profité di ci defaat ay ay ñaawteef loolu bëgg nañ cee jub bu baax waaye mujj nag comme combat ba muy am le 11 mu ngay tontu adversaire bi di caat nee ko xam naa say fort xam naa say faiblesse aussi. dëgg la Ndeye caat dafa def euh, open press euh, wax yu ko neex wax euh, yóbbante ay kàddu mujj mujj également def open press tontu ko nee na ko caat yemal ndax xam naa say foor xam naa say faiblesse. ndax man ñëwuma ci esaat pour rey kenn waaye li ma xam daal mooy man pare naa physiquement feebaruma mais maa ngi yëg sama bopp te le jour ji incha allah dinaa la daane. mën na la nekk combat bu neex ñoom ñoom ñaar ay xale lañu war a yëg ci kaw. ay xale lañu ko exactement ñoom ñaar ñëpp ñu ngi aspirer devenir des grands. Euh, te instant yi euh, bàyyi na leen xel bu baax te combat bu neex la war a doon incha allah Mbaye Mbacke. beneen combat bu amee nag Abdou Diassé ak Pape Ndoye combat ba nag ko ficelé mooy jam production borom jamaïcain di ko nuyu bu baax. jamaïcain le jeune promoteur moom nag ñëwaat na defaat euh, tëggaat. combat bi war a dox ci diggante abu Ndiassé ak Pape Ndoye Pape Ndoye mi ngi nekk Fass Ndakaaru abu Ndiassé mu ngi nekk écurie Lansar nekk lieutenant wala bokk ci àndandoo cité yi ko ñoom ñaar ñaar ay xale lan yoo xam ne nii seen dernier combat euh, ñëpp ñu ngi fàttali Pape Ndoye Jackson moom moo ko daane woon dafa dooroon mu daanu kaaw bu ñàng boobu abu Ndiassé moom Tafa Gueye numéro 2 moom la mujj daane kon jamankeen tëgg ñaari xale yi nga xam ne nii ay naataangoo lan ci biir làmb mooy noonu beneen combat ba nana jii ci arène nationale Ablaye Diop ak Pika Ama Dia nag moo offrir journée de dëgg la dëgg la Ndeye doon nekk ci jàppale promoteur yi ren mu digg nee na day nekk promoteur pour tëgg ay combat te nag lay def première journée am euh, war a boole diggante Abdoulaye Diop mi nga xam ne nii Yoff la nekk ak Pika bi nga xam ne nii euh, Bàcc Seras la nekk combat boobu nag arène nationale la amee tey incha allah. mu ngi noonu nag vingtième journée de la saison hier Ronaldinho met mais 2 sur ses 4 ginnaaw loolu la da daan da jël raw gàddu ga. dëgg la Ndeye Mbacke loolu démb la woon ci arène nationale yi daal yi ñu ngi moom moo ko tëggoon Ronaldinho war fa da waroon fa doon daje fa ak Koña euh, ni mu mujjee moom mooy Ronaldinho moom moo jël ndam li euh, Koña nag instant yi ngi ci difficulté ndax dernier combat am daf ko pertoon tey mu dikk daanuwaat mu nekk ñaari dafa joo xam ne nii dina dis tolop ci moom. tournoi ba nañ demee tournoi des jeunes espoirs deuxième journée yi nga xam ne mooy yi daal di ñu ngi moo ko taxawal. yankaaw nag revi ginnaaw ba ko Thiatou Daouda Fall daanee démb dafa ñëwaat dundalal boppam waaye Thiatou Daouda Fall nag confirmé na ak 6 points. dëgg la loolu tamit démb la amoon ci arène nationale toujours yaay yi daal ñu ngi moom moo ko tëgg euh, tournoi la def entre ñaari quatre adversaires yi moom mooy Yankaaw Kaw Gourdin Thiatou Daouda Fall ak Albarka. tëggal leen benn tournoi démb la woon nag deuxième journée bi deuxième journée bi leen fa gis moom mooy Yankaaw moom moo fa daane Kaaw Gourdin ndax première journée bi Yankaaw dañ ko daane donc tey relancé wu na caatu caatu Daadu Fall moom moom moo fa def peut-être benn exploit ndax dafa daane woon première journée daan démb Albarka Kayre donc moom moo jël bee ci group bi ak 6 points le deuxième place bi Kaaw Gourdin ak euh, Yankaaw ñoo koy ñoo ko séddoo Albarka Kayre moom moo nekk quatrième place bi ak zéro ak zéro point mu ngi noonu nag journal les arènes lañ jëm les arènes combat bay am ci diggante Ama ak Boy Niang les vrais défis maanaam kii mu ngi war a bëri combat royal kii nag mu war a bëri ngeen combat de choc diggante ak Tapha dëgg la ne Mbacké Ama Baldé ak Boy Niang li ñu bokk moom mooy Pikine léegi nag journal les arènes ñëw defal leen les vrais défis ñaari mbër yooyu nee na ñoom ñaar euh, ñoom ñaar boo dajalee seen victoire yi euh, mu nekk ci 26 victoire ñoom ñaar ñoom ñaar tamit boo leen dajalee seen i défaite 5 la ndax Ama Baldé am na Euh, treize victoires deux défaites kii di Boy Niang 2 am treize victoires ak trois défaites léegi nag seen défi journal bi nee ne euh, premier defi bi moom mooy ñu atteindre au sommet ndax instant yi euh, ku nekk am nga benn grand combat kii mi ngi war a dajeeg Tapha Tine kii mi ngi war a dajeeg Modou Lo te buñ daanee rek ñu ngi ci kaw kenn dootu ko naatable ci kaw la ñu nekk beneen défi bi ci topp moom mooy ñu. oublier faire oublier Tyson ak Eumeu Sène ndax Pikine bu ñu ko waxee rek Tyson ak Eumeu Sène la sa xel di dal euh, di dal di dem voilà léegi na ñoom seen seen défi bi mooy que ñu def tout ba waa Pikine génne Eumeu Sène ak Tyson seen bopp dugal ci Boy Niang ak euh, Ama Baldé nga xam ne ñoom ñooy garab ci kaw lay fekkante voilà ñu noonu nag ba léegi journal Les Arènes la ñuy desandi Tapha Tine la dëgg rumeur le puncher Jos de Souman ak Yékini Junior ñiy laaj ñi nga xam te ne ñoo ko doon classe ba la lañ nekk journée bi tey ji nekk nii. dëgg la Ndeye loolu euh, les arènes laajte ndax Tapha Tine Yékini Junior Lac Zos ay ñoom Balla Diouf ñooñu ñoom ñoo démarré woon classe bi loolu ci année 2000 yi la. léegi nag dafa def benn question xool ñoom ñi ci lan la mujj neeneen na ba léegi moom mi ngi ci fi mu nekkoon nekk na au sommet mi ngi bëreeg euh, ñi nga xam ne nii ñoo gën a euh, redoutable ci làmb ji. nee na Tapha ba léegi mi ngi loxoom yi mi ngi baax. lu tax sax ba léegi mënul bëre grand euh, combat royal c'est parce que parfois dañ koy éviter moo tax euh, wax ñëw na également ci Bathie Séras nee na le magicien perd sa science nee na moom kenn gisatu ko ci làmb ji eh, xam-xamam peut-être daf ko reer wax na ci également ci Balla Diouf Balla Diouf nee na moom mi ngi entre la sécurité ak coaching ndax moom mooy coach Papa Sow ci Jàmbaar Wrestling Academy yor na benn également benn eh, entreprise eh, sécurité su ma jumul nee na Boy Sey moom la phénomène devient Modou Modou nee na Boy Sey moom léegi mi ngi ci utum dërëm la nekk ci utum dërëm la nekk léegi moodu moodu la nee na Zos moom nee na le man le showman entre business ak euh, arena blood arena blood nee na Zos daal ci business bi la gën a concentré wu actuellement wax na également ni Junior nee na mi ngi entre Canada Turquie ak les États-Unis nee na moom ñetti dëkk yi la nekk di dem di voyage yi di dem ak dikk peut-être di gérer ay affaire am mu mujjee ci Issa Pouye nee na un caïman en nous trouble gis nañ ko dernièrement combat am duñ ko dooree mu daanu contre Alioune Seye 2 euh, Issa daal ba léegi affaire am moom it ngi. Euh, jaww des na aw xam ngeen ko mën a. baar day suuxandi voilà. noonu <laughs> <laughs> laa di koy kontaanee bu baax moom Assane Waar loolu moo nekkoon diggante fa si xibaaru làmb looy tàggatoo di la bëggee Ndeye Mbacke di bëggee internetu Leewtoo TV di leen jox euh, rendez-vous ci yeneen i ndaje jërë ngeen jëf. di leen remercier baax di bég ci yéen ah di am contentement nee naa jënd ak yéen chaque jour ku ci nekk ah su ma soñoon fa nga ne laa la fekk ne leen jàpp sama loxo waaye fii laa toog ci nekk ma jëloon waaye kenn du sama caméra bu man bi Fama damay bég ci yow bu baax sama équipe technique bi Bamba Mañ Pro sama photographe boobu noonu borom shooting yi damay bég ci yow bu baax a baax waaye noonu la def jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen